Sambu Diogal li bu Ndakaaru aywa ñu dem léegi dalal Marcel Farba Maroon ci un jour une actu aywa Marcel Farba Maroun tey un jour une actu nga bon ce n'est plus un sujet d'actualité c'est mais bu ñuy wax au vaccin quand même ça intéresse exactement ça intéresse surtout lu jëm ci euh, wàllu production euh, locale di leen ci gën a dellusi on s'intéresse donc à un chiffre bi nga xamante ni ça renvoie justement à cette question euh, qui peut être toujours ci wàllu vaccin le nombre de personnes xamante ne euh, ci euh, benn weeru mois de euh, mois de mars bi rek dañoo recevoir dose vaccin anti Covid 19 donc le 1er mars on était à 1 million 448 mille 840 vaccinés du Covid 19 au 31 mars ñu tolloon ci 1 million 462 mille mu nekk nag un nombre encore loin des objectifs des autorités sénégalaises et des de l'Organisation mondiale de la santé instant bi nga xamante ne réew mu Sénégal mu ngi activé wu ngir fexe ba réaliser projet bi ñuy tuddee Madiba soxna ah, Fatick. alors Madiba suñu ko waxee xel te dem ci beneen pays. lan moo ko indi Sénégal c'est quoi Madiba. d'aucuns auraient pensé que c'est le deuxième prénom de Nelson Mandela mais non Madiba manufacturing in Africa for disease immunization and building autonomy comme pour euh, dire que euh, lu jëm ci wàllu production usine euh, fii ci Afrique ngir xeex ay feebar donc ci lépp lu jëm ci wàllu immunisation en tout cas vaccin ak lépp lu jëm ci wàllu domaine médical ak building autonomie Euh, pour renvoyer à la construction de cette autonomie à cette indépendance donc Afrique euh, di jëm ci wàllu boobu bëgg à travers ce projet euh, moom boppam ci wàllu production de médicaments et autres vaccins donc mu ni benn donc projet de création d'une usine de production de vaccins ici au Sénégal pôle régional production bi Institut Pasteur IPD bu Dakar donc moom moo moom moo koy nar a doxal moom mi nga xamante ne mu ngi produire déjà le vaccin contre la fièvre jaune muli ni lu ciy gën gestu ay vaccin anti Covid en majorité nar a xool ndax du ñu am possibilité étendre ko euh, types de vaccins surtout ay maladies yi nga xamante ni dañ leen di woowee négligé ay maladies yi ñuy faral di euh, di bañ a nemmeeku yi mhm. sévir en Afrique comme par exemple la fièvre de la vallée euh, du Rift ñu gis ne ay partenaires techniques et stratégiques comme Coalition for Epidemic Preparedness Innovations donc coalition pour les innovations en préparation aux épidémies ñu gën leen CPI et BioNTech fabricant

1 et puis 200 nouveaux emplois également attendus à travers ce projet soxna Fatick. alors parlons toujours du projet. bërëb mhm. bi koy dalal. bërëb bi koy dalal on peut imaginer peut-être aisément ça se trouve à Diamniadio le projet futur vaccinopole euh, Madiba euh, donc muy nar a amee foofu ca ca Diamniadio mu di benn site boo xamante ni cinq bâtiments euh, joge nañ fa déjà jot nañ jógee ci ci suuf si donc buñ ci mën a ràññee bi Afrique Amaril bi nga xamante ni moom tamit day nar a porter fabrication vaccin anti fièvre jaune à 30 millions de doses par an à une longueur d'avance nag moom ci Madiba fu mu nekk ni travaux yu jëm ci Afrique Amaril moo gën a sori

am accès ci euh, ci vaccin yi ñu gis ne ne au fur et à mesure mbir yi euh, daal neen amélioré wu waaye dañoo anticiper sur les prochaines crises euh, de manière à bâtir une autonomie en Afrique nous voulons aussi nous occuper du vaccin de nos enfants et petits-enfants ñu ndaw yi dans le cadre du programme élargi de vaccination mhm. permettre tamit ñu attaquer yeneen vaccin yoo xamante ni gul waaye objet de recherche lay a et qui seront très importants pour Merci beaucoup Chérif. Très rapidement, un mot sur euh, Madiba. projet bu am solo la Fatick comme li doon wax ci dund gi rek wàllu santé aussi bu naan indépendance mun cee ñàkk parce gis nañ li ñu daal ci Covid bi te Institut Pasteur quand laboratoire bu am solo la boo xamante ni am na réputation sur le plan mondial ndax euh, docteur Alpha moom nekk administrateur bi. Mm-hmm. bokk na ci virologue yi gën a mag euh, gis nañ liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ci Covid bi mais maladie Zika bi mu amee Brésil ñoom ñoo bañ rek ku feebar mm-hmm. a nag mm-hmm. a ñu def ko ci tàggat gone ci wàllu wér gu université Cheikh Anta bu Ndakaaru ndax am na ay spécialistes yoo xamante amu fi dañ koy jëggaani bitim réew te tamit joxuñ leen wàllu spécialisation ci wàllu bourse ak yu ni mel. Mhm. su ko defee ñu mën cee moom sa bopp comme am nañ 62 ans merci beaucoup Chérif il est 7h33 euh, moo jot également euh, ci diwaanu Yëmbal.